والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد بن محمد التجاني وعن جميع خلفائه وعن خليفته المطلق بلا نزاع ولا شقاق mu koy waxee guddi gi ci dëkk bi yàlla teral doomu aadama teraanga joo xam ne dafa daj bim jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy sànni way njëkk ak way mujj yónni ko def ko muy doomu aadama loolu teraanga la ñuy xam doomu aadama mu jagleel teraanga boobu jaamam yi nga xam ne dañoo gëm yonentu sallallahu alayhi wa topp ko mu defal leen ci ak jagle goo xam ne xaas la dafa spécial yonentu boobu sallallahu alayhi wa nga xam ne moo ñëw ngir dimbale dëgg ci dëgg naasaril xaqi bil xaq bi mu ñëwee pour dimbale dëgg ci dëgg dafa ànd ak ndimbali yàlla bi mu àndeek ndimbali yàlla yàlla méngoo ko ci la yàlla méngoo waale képp ku ko topp ak képp ku ko dimbale moom yoon sallallahu alayhi wa ak képp ku sawar ci moom ak képp ku bég ci moom ak képp ku ko bëgg ak képp ku koy tagg ak képp koo xam ne oote bii mu indi muy diinal islaam nangu nga ne ci yàlla la jóge jaar ci yonentam bu tedd boobu noonu mu teral ñooñu teraanga joo xam ne teraanga àddina la ak teraanga àllaaxira yàlla sàkku ci jullit ñi ne nañ méngoo yoonu sallallahu alayhi wa sallam nañ ko dimbale te boobu fekk na moom yàlla mu dimbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare yàlla ku mu teg bëtam mane pare na la aar te yàlla wax na ko fa innaka bi ayunina yang ngi ci suñu wat waxaat ko wax jullit ñi illa tansuruhu faqad nasarahu llah su ngeen nanguwut yéen bindee fii dimbale yonent sallallahu alayhi Wasallam, sallam yàlla moom dimbale kon mbégte gii ñi am ci juddu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xeet la ci yëkkati yonante sallallahu alayhi wa sallam xeet la ci màggal ko xeet la ci puukaréewoo sedd gi ñu ko yàlla sedd loolu nag amul dara lu ci yonante sallallahu alayhi wa sallam di gañee waaye ñun ñoo ci gañee ndax yàlla wax na in tansurullaha yansurkum bu ngeen méngoowee yàlla dimbale ko yàlla dimbale leen yàlla mooy borom kàttan mu mag soxlawul ndimbal waaye ki mu yónni def ko ngi seddi mu sëddin buñ ko dimbalee yàlla dimbale ñu lii ñuy def nii liggéeyal ko la xeet la ci liggéeyal ko comme ni ko Cheikh Ibrahim di waxee kaam xeet la ci liggéeyal yoon sallallahu alayhi wa sallam moom nag ala kulli xaalin ànd na am na ndimbalu yàlla ba nga xam ne yii ñuy def nii ñun suñ bopp lañ koy fàggu bàyyi dafay wax ne miskin su mayee aju omal moy ne daf koy ñaan dafa nekk di koy ñaan yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla yi yàlla sant yépp ne nañ ko def nekkul ne jullit ñëpp ànd nañ ci pour def ñi koy def tamit du ne ci waxtu wi ñu ko sàkku ci ñoom lañ koy def ñi koy def ci waxtu wi tamit du ne ni ko sàkkoo ci ñoom lañ koy defee te yàlla nim sàkku ci jullit ñi mooy ñuy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa yeneen jaamu yépp am na waxtu am na barab am na jamono léegi bu jullee gee mën naa am mënatuñoo julli benn farata te fajar jot waaye diggante bi yépp mën nañ cee nekk julli ci bi sallallahu bu fajar jotee ku njàppam toj te yeesaloo ko doo mën a julli waaye ku pare ci géeye gi fas yéene ne da julli ci yonent ba fajar jot même boo sëlmalee gee sa jàpp toj mën nga di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla di la ko nangu yàlla amul liggéey fi nekk rek mooy shay'un yubdiihi wala yubtadiihi faam yu muy feeñal rek fekk amoon na ca ësël waaye amul dara lu muy tàmbali waaye buñ ko doon sàkkal liggéey dañ naan liggéeyam mooy ne dafay julli ci Yonent bi sallallahu moom yàlla moo wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha ñu ngi julli ci Yonent bi sallallahu alayhi ñi gëm yàlla julli leen ci Yonent bi sallallahu وسلم تسليما yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne jullit ñépp ànd nañ ci ne duñ nangu kenn laal jullit dana romb jullit mu sàgganee julli du xeex ak dana rombu jullit muy naan du xeex ak dana rombu jullit muy jëw du xeex ak dana rombu jullit muy def loo xam ne yàlla da koo tere lu tax mu jaral ko mu sumee xeex ak moom waaye bu gisee tudd yonent sallallahu alayhi wa ci lu duwut nu ko war a tuddee lu ko war wax bare na ko jox ko bakkanam loolu jullit ñëpp ci am nit ki mën na nekk ci baar bi di naan sax mu wóor ko ne ko li muy def ni neexul yàlla mais ci côté bi bu amee ku tudd yonent sallallahu alayhi wa bare na koo xeex reyante ak moom kon yonent sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne ci moom ci la umma bi yëpp mën a dajee nekk benn ndimbali yàlla boobu noonu mu am mom moko may loolu yàlla nako huwa alladhi ajadaka bi nasrihi wa bil muminina wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa bayna ci ndimbal bu yàlla dimbal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la tàppee xolu jullit ñépp ñi ànd nekk benn waaye mbir la moo xam ne ku jëloon alal àddina yépp pour dépenser ko pour jullit ñi nekk benn loolu dana jafe waaye ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mën naa ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñi baax ak ñu bon dañ nyakam ang nyakamut xam ak ñi xamut illa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mën ngeen a suñ sëriñ Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu doy na ci misaal ruwaydakum ahlal kanisati lan taraw mada dahri anna qad tarakna muhammad yéen waa église bi tey leen ngeen ñu gis mukk ci àddina mu nekk ne ñun ñun bàyyi nañ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ ko bàyyi wa ahbabtuhu حتى أراني كنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا bàyyi ne bëgg naa ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam dem ba gis ne man maay moom te jamono jooju yàlla bindul jamono bindul espace maanaam dara amut xanaa yàgg na inna nii xablal baraaya ndax yoon sallallahu alayhi wa amam mooy li yàlla njëkk a sàkk nee na kurtu nabiyyan aliman bi nubuwwati wa aadama bayna al-maa'i wa tiin naa yonent xam ne yonent laa te aadama boobu lu ci diggante ban ak ndox nee na jaabir radiyallahu anhu ne ko yaa jaabir ndax xam nga lan la yàlla njëkk a jaabir ne ko yàlla ak yonentam ñoo xam mu ne ko li yàlla njëkk a bind mooy sa leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sallallahu alayhi wa bi mu jugee xusuwat Tabuk nga xam ne def na fa juróom fukki fan weer ak ñaar fukki fan bi mu dellusee ci dugg Madina al Munawwara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëggoon Madina mu ñëw fekk garab yépp a ngi naat من فرت من طيبة طابت من مدينة تينا ناتنا تونتورنا سخنا مينينا رفدنا عباس نكم من قبلها طبت في ظلال وفي مستودع حيث يصف الورق mu ne ko yow naat nga tey nga rafet nga jiitu Madinal Munawwara di mel ni mel nii kañ nga teeyoon ci aljanna kañ nga teewoon bañ la dénkaanee ci ndiggal aadama alayhi salaam wa fii mustawdain xaysu yux saful waram ba aadama nekkee ak di ut ay xob pour suturaal seen bopp abbas alayhi salaatu wasalaam ne yónni sallallahu alayhi wa sallam yow boobu fekk na nga tey ndax ku ne xam na ne aadama ak xawaa yàlla daf leen dugal aljaana ne leen lépp lu fi nekk ñeexal na leen ba mu des garab gi bu leen ko lekk seytaane ñëw jax-jaxal leen bañ lekk garab yàlla futti seeni mbalaan ñu ut duñ suturaale seen bopp waxtu woowu noonu abbas alayhi salaam wax na yonentu ne ko boobu yaa nga woon ci aljanna te fekk na yaa ngi teey ndax boobu yaa ci ndénkaane mustawda ci ndénkaane ci ndiggal aadama ndax doomu aadama bu gënee bul àddina dafay nekk ci ndigg góor ñi wala ci biiru yaay yi bu nekkee ci biiru yaay yi ne raxim la tudd mustaq min al rahmat ci lañ ko dogee yërmaan bu dee ci ñi la mustawda dañ denc مستودع عايش في ها مستقر ومستودع بارك الله مستودع بوبو موي بلين ديكاني بلين في بلين ديكاني زين ديكاني من قبلها طبت في ظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق يونس صلى الله عليه وسلم يقول ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علم mu ne ko nga wàcc ci kaw suuf te baayam ma wàccoon Adama alayhi salaam waaye daf koo tagg tagg boo xam ne baayam yi sax tuddut leen ci tagg googu noonu ndax dafa wane ne li fi nekk yépp yoonu sallallahu alayhi wa sallam la du keneen thumma habata al bilada nga wàcc ci suuf la basharun keneen nekk fi wala mudghatun muy lu mu deret wala alaqu muy alaq dogiti yàpp bu mënuwu commencé di former di màgg alaq ñëw na ci alquran nut ba ñëw na ci alquran ثم هبط البلاد لا بشر انت ولا مضغه ولا علق بل نطفه باي شي نين جيخي تيوم صلى الله عليه وسلم بوكتا ميل يونتي شي نطفه نخ نطفه موي توقنتل منيو باي كوريجي عباس نمطهرا تركب السفينه عباس بل نطفه تركب السفينه مطهرا تركب السفينه ci ni mel ci bëggee la toujours rek na mu gën a rafetee ku sell ku laab moo doon dugg ca gaal ga te gaal ga yoon ci yàlla noox moo ci duggoon waaye Abbas amuta tudd moom ba nutfatun tarkabu safina mu ne ko yow la woon yaa yéegoon ci gaal ga waqad aljama nasran wa ahlahu xaraqu keroog ba ñuy lab ñi mucc yow yaa leen muccal ci gaal ko waragta naaral xalili muktataman te julu fiha falasta taxtana ibrahima alayhi salaam moom la Namruud jëloon sànni ko ci safara si abbas alayhi salaam ah, ah, radiyallahu tuddut ibrahim waaye yonentu la wax ne ko yow mii yéen sànni woon safara si nga nekk ca te lakkoo tunqalu min sahibin ila rahim da ngay ci ndiggi góor gi di dem ci biiru yaay waaye mu ne yunus sallallahu alayhi wax na ne mësuma jaar ci diggante góor ak jigéen boo xamante ne nii jaarul sëy kon dalee ci Adama ba keroog Abdallahi ak Aminata di ko jur fu jaar rek ci kaw sëy buñ xam ci lay jaar tunqalu min saalibin ila rahimin ida mada alamun bada tabaqu bu ñuy demee rek am ñeneen ñu gàddu sa ñu koy awante rek di koy awante rek ba moom yonent sallallahu feeñ هناكو انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فين انا عدنا يب سوف يب لير قوح يب تاك نحس لير nga xam ne ñun ak mbooleem jullit ñi ñu ngi nekk ci leer boobu noonu di ko jëriñoo di ci feey di ciy tedd kon Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dafa yittewoo tagg yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. sallam façon boo xam ne képp ku ko tagg tagg bu rafet moom bàyyi dana fonk tagg woowu dana ko yëkkati dana ko wax ba àddina yëpp yëpp te neetu rabi bii ñuy jàng waaye bu taxutoon ak bàyyi nit ñi fàtte na waaye fii ci balaa nit ñi ñëw gàmmu fi amul gox buñ ko dul jàng biti Sénégal Afrique amul gox buñ fa fa dul jàng loolu bàyyi moo itteewu loolu ànd ak ne moom ràbb na lu mel ni téeméer rabe waaye daf koo teg jël téeméer rabe di ko teg yéen muqaddima bi muy defee wéy seet na takkat yonent bi ñi ci gën a rafet bi ko takkee kenn ku nekk ñu jël sa ay oyof dugal ko foofu noonu ci muqaddima bi balaa muy commencé ci tamit te ànd ne takkkat yooyu noonu sal euh, radiyallahu anhu liggéey li muy màgg màgg waaye jigéen ñi ko gën a yaatu wa bayni wa bayna al-maadiina saraabix وعور فما جيبت بمدحك سربعه نسمع منه mbëggeelam googu noonu yoon sallallahu xam ne wax na ne xaali ma al Moustapha la aqla yudriku ni ma mel yoon sallallahu xel mënul koo imaginer wax na ne bëgg na ko balaa lenn di lenn inna ni qabla al balaa yàlla di bind lenn man damaa bëggoon yonent bi wax na ne bi koy bind. nit ñi ñi ngi ci diggante bi ma koy bëgg nit ñi ñi ngi ci ak nelaw ulliqtu bihi wan naasu fii sinatin karaat man taatu minhu daam it kuntu mufrada ba may bànneex ci moom nit ñi ñi ngi ci diggante gémantu ak nelaw àddina si amagul mu ne was waxamtu fi haasi zamani ñi ñëw ci aalamu naasu ñu koy buuxante man waaye nag xam ne barab boobu ma am ci bëgg yoon sallallahu alayhi wa sallam laa ci bu ko bëgg a xëccoog man waaye sax ñu ko xëccoo bu dee xëccoo bu course la man buñ naan bër rek ma jël pay wala kinna bi jëleytu qabla sibaax waqad bintu tabriz al quruni li ahmada saa yu ñu rawantee ci ku ko gën a bëgg danañ fekk ne man maa ko gën a bëgg ku koy bëgg saa yu taaliba ñeneen rawantee ci ku gën a bëgg yonatu danañ fekk ne samay taalibe ñoo gën a bëgg yoon ci keneen te sa maari jaabi bil xadimi wa innani usaajinu laa anthani wa usaabiqu am nañ tuddee seen bopp ne ñooy bëgg nekk yoon sallallahu alayhi wa sallam damay rawanteeg ñoom te damay jël pay ci rawante bu usaajinu maa ishtu fii kër tant maa ngi dund damay rawante ci course boobu dama ci dama ci dama ci jëlbee in amut yu saajiloom far yi wa fit yu saabiku su ma deyee nag sama topp dañuy continuer course boobu te ñoom dañuy jël pee dañuy raw keneen ku dul ñoom loolu garantie la nga ne ko waaw bu bëggee kii moom xanaa daf lay ñëwal ay jamono ay jamono muy dem mu ne déedéet nga ne ko lu tax mu ne bi bërin wa baxrin qad baaftu madaaixi wa dal yowma isdu fi lhawa mutajamjima ci jéeri ji dama koy yónnee ay tax ci géej gi dama koy yónnee ay tagg tey maa ngi nii ci avion bi tamit di ko yónnee ay tagg ngeen ko bëggeel kii ndax yonent xam na ne noonu nga ko bëggee mu ne la nee naa ko lëkkal ahdu fa innani uhibbuka hatta xiina fil qabri udfan maa ngi jaayanteeg yow yoon sallallahu alayhi wa sallam di kóllëraanteeg yow di la wax ne la dama laa bëgg ba keroog ñu may suul nga ne waaw xanaa bu nga suulee nag léegi nag jeex na génn nga àddina bëggeel nga fa lay yem mu ne déedéet nga ne ah nu muy demee mu ne la matan sarafal na an def li jussati baqitu bihi ahyaa bi yawmi liqaay ñi ma doon denc buñ faxasee seen loxo ci suuf si ba ne yee pare nañ damay dekki di bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba keroog may daje moom nga ne ko waaw léegi kon xanaa keñ boo dajeeg moom foofu lay yem mu ne déedéet nga ne ko nakam mu ne ko yowmal qiyaamati ñaari kër rek ñoo am aljanna safara yàlla bi mu booyalee safara si mu utali mbindee fi ñoom ñëpp dañoo daw dem seen bàyyi aadama ndax moo leen jur mu ne man la ne ma nañ daw dem ci mu yoon ci yàlla mu wax ni ñëw mu ne ñemu maa janoog borom ba ndax jànj woon na ma ba mu ne ma yéegal gaal gi yàgg ñi ba ma yéegee damaa nekk di oo sama doom ji nga xam ne yéeféer la bàyyi mu ne al bashariyatu laa insaan mu ne ak aadama yëpp du tàggoog nit ndax noox alayhi salaam bi naan ko yaa bunayya rkab ma'anaa wala takun ma al kafirin boobu xam na ne ci yéeféer la waaye nit ni muy mel ci doomam mooy bashir yu tulaatu faaraxul sax ñeneen nañ dem ci ibrahim abul ambiyaay ñi ñëw mu ne man damaa fenoon te ñemewumaa jàkkaarloo borom ah kañ nga fen mu ne bi gaa demee seen feet yi ma toj seen xërëm yi damaa jël sembiñ bi ma doon tojee xërëm yi wékk ko xërëm gu mag biñ ma laajee dama ne leen bal fa'alahu kabiiruhum haadaa xërëm gu mag bi moo ko toj laaj leen ko bu fekkee day ne kon nañ daw dem ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam mu ne man ñemewuma de ñu ko lu tax man damaa rayoon bakkan foo xësawu Moussa alayhi bakkan ñu ne nañ dem ci yonent yàlla Isa mu ne hee man sama nit ñi nee nañ man yàlla laa sama yaay yàlla la yàlla yàlla la man ko ñemewuma jàkkaarlu borom ñoom yonent yëpp ñu dajee ñu ne kan mooy solution ñu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kon nañ dem ci yonent sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ñëwee seen wujur alayhi salaatu jiite leen ñi ñëw ci borom bi yoon sujjóot yàlla na ko tey di bësëb sujjóot irfa rasaka sal tuta wasfa yëgat sa bopp tey di bësëb sujjóot laajal ma may la nga rammu nga ramu ñi nga ramu ba ñi rammu sax bàyyi na la keroog bu ñëpp taxawee yonent yëpp taxaw yonent sallallahu alayhi wa sallam nekk seen di leen rammu keroog damay continuer mbëggeel boobu ne ko ma taakunta wastal anbiyaay mu shafa anu naalika ashdu bithana wa ulawi keroog ba nga taxawee di leen ram keroog nag laa lay gën a tàgg te di wax ca kaw su ma paree nag ne ko hunaaka tadakar yaa shafiu yow ajaram mu ji fàttaliku mu xaste nag koo xam ne dafa gàttañ lu ci sa xàq kon ñun war nañoo seet suñu bopp bu dee ne bàyyi bi nga xam ne dundam ak deexam lekkam ak naanam commerce am ak bénéfice am lépp takk yonent sallallahu ak ak ko la mu tiim ko nan ko fàttalikul ki nga xam ne dafa gàttal ñu si jeex takk ci sa mbëggeel alayhi wa sallam gestu Cheikh bàyyi na ko maag sama topp maag sama soppe yi ak sama topp yi du ma dugg mukk te ànduma ak ñoom fa qultu lahu sahbi samay taalib wa ahla mawaddati nga xam ne bañu ñu ndax nit mën naa bañ a doon taalib ba pare bëgg bëggee googu sax nga koy jël wa kutloo sax bi wa ahla ne eh, yéen toppay leen ak jànna muy mbir mu ngeen di jëkkalante nga ne ko xanaa nag léegi buñ demee ba aljanna nag ba nag gis yu tee yi fa nekk fiha ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala xadara ala qalbi basharin qat yi fa nekk da neex bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg mës ta toq ci xelu doomu aadama te doomu aadama yu neex dafay toq ci xelam waaye mënta àgg ci nekk aljanna ay yoon sàngara ميو ندخ لم اي حور العين اي جيجن يو خمانتيني تار من تار بو خمانتيني فتبارك الله ما شاء الله يو يب دنيو نيك تي بير الجنة اي فيرو يو خمني بوكوي ليك سا خيل دا فاي دم تي فيرو ادنا بي كلما رزقوا منا من ثمرات رزقا qaalu haadha alladi ruziqnaa min qabl wa utuu bihi mutashaabihan lahum fiihaa azwaajun mutahharatun wa hum fiihaa xaalidun ñam buñ leen indil rek ci meññet bi dañuy foog ne lekkoon nañ ko ci àddina bu dee pomme la dañuy fom ne pomme àddina la bu dee orange dañuy foog ne bu dee mango la mais buñ ko mosee dañ ci yëg cap ko boo xamante ni dinañ xam ne luñ benn wutee na lool nga ne bàyyi na ko waaw yooyu yoon yëpp nag léegi dugg nañu aljanna ba ku nekk def sa dalwaay nekk ci neex yooyu noonu xanaa nag bëggeel gi dafay jeex mu ne déedéet nga ne ko lu tax mu ne fa law la irtidaadun fil jinaani bi nuurihi lama xanna naxwal xuldi kullu mubassari mu ne bu taxutoon ak bànneexu gi ñuy bànneexu ci biir aljanna ci leeri sa bi sallallahu alayhi wa sallam kon ku am xel sax doo war a bëgg dugg aljana li muy neex neex bu dee am nga xel bu taxutoon ak leeri yonant gën a nekk nga nekk biir aljana kon doo xemal xaside boobu bàyyi nga commencé matla bi hawal Mustafa al Muxtaari xaalata mudmari boo demee ci mool biñ mool day fekk ne niñ ko bindee huwa huwal Mustafa al Muxtaar boo ko peesee ci misaan maanaa bi dafay ñëw ak wasna bi huwa huwal Mustafa al Muxtaar xaalata mutmari baxra tawil la dafay ñëw ci fuulun mafaa'ilun fuulun mafaa'ilun mooy li bàyyi di wax النبي صلى الله عليه وسلم فعول مفاعل فعول مفاعل بدا الدهر لا ياتي من مدحك حاكيا لنكو وح وح وح وح يطخ لين لا ورا تاغي ني تاغي تي اب بحر طويل مو فوف لو تي غاني غاني دانيو سكي تي راديس ديريك tax koo métti la hawa dafa jaxasoo ak man mooy sama lépp mooy sama lenn diwaan bi li muy rëy rëy benn muqaddamu bàyyi bu ñu wax Chérif Mouhamad Abdallah ibnu Seyid ba léegi mi ngi dund ci Mauritanie bàyyi ko lijaasa moom moo bind min axbaari Cheikh Ibrahim lenn ci soloy Cheikh Ibrahim bu téere bu riche mu ne dafa dugg ci bàyyi rek bàyyi ne ko jàngal xasida bi nga xam ne borom amul xel اقرأ القصيدة التي صاحبها لا عقل له لي باي تاكيون صلى الله عليه وسلم دفو بري لول واي جيتو باي امنا لي تاكيون تاكيو بري لول مو باي تاكيو ni jitu baye ni ko tak mu baye yoy non yeb bi mu ñewé ci diwan bi xol diwan sit nim em xol jam ci wa nim em dafa teub rek dal ci هو المصطفى المختار خالة مطهري وكلي وجزئي فهو عيني فهو فهو سري ومظهري di way di way di way ba àgg ci walita rasulullahi walita rasulullahi kaana musairan li barhamana xaalidan kulla masali bi mu mébétee daal yoon sallallahu alayhi wa sallam man waroon naa mën a nekk saxaabaam waroon naa nekk Omar daal bu ma amoon lu ma gënal Aboubacar laay nekk radiyallahu anhu bu ma amoon lu ma gënal Omar laay nekk bu ma amoon lu ma gënal Abbas laay nekk bu ma amoon lu ma gënal Jaafar laay nekk wala ci ka Jaafar yi Jaafar radiyallahu anhu Yunus sallallahu alayhi oh, wa sallam daf ko ne woon isbahtani xalqan wa xuluqan Jaafar fecc ndax kontaan bàyyi ne xellantu ko woon ma nekk Jaafar ولدي كالسبطين عدلين فوقه ورونا نيك صح حسن اب حسين عليهما السلام nga xamne bu yonentu di ruko dañuy depp kaw gannaawam bu bu sujjóotee ñi ni ni ni ni ñi ñi ñi ñi toog ci gannaawam gi yonent guddal sujjóot bi lool ngir bàyyi leen ñi bànneex bu mu mënta lekk lii yëpp waaye man waroon naa mën a nekk sax suuf sii nekk ci dàll yonent bi sallallahu alayhi wa bu yonent di dox bépp bépp suuf yooyu di nekk foofu man waroon naa nekk loolu noonu su ma ko nekk socc bi yonent di soccee waroon naa mën a nekk loolu noonu su mënta nekk waroon naa nekk buuxu ndox mu nekk yonent daf may naan man ma jeex bi mu ne nag yonentu sallallahu alayhi wa waroon naa boyal safara comme boy rek mu sànni ma ci بي محمد عبد الله يوسي داني هو المصطفى المختاري جتاري جتاري بنيوتي بيتي بيني بايل ابو حمد نكي وحلي ام الخل مانام جيخ جيم جيخ كيون صلى الله عليه وسلم كون بكير بوكو موي ميسيون بيغا خامني سي ميسيون يي غنا ماك لا بور جيمبر سي كو سي خولي توبال ناخ دارا فيتي وو كو bëgg Seydi Wujud sallallahu alayhi wa sallam te lii ñuy def nii di ñëw di gàmmu si di déplacé ndax moom di dégg ay solo di fanaan di julli ci moom di fanaan di dégg ñu koy takk loolu dafay jëmbat bëggee lépp ci suñ xol te suñ ko buggee dañuy nekk ak moom te ku nekk ak moom da nga Renaissance di gërëm diary daayira yi fi teew ñu ngi sant di gërëm mboolem soppe yi fi teew ñu ngi sant daayira cubbeen di gërëm seen taxawaay di ko rafetlu at mu jot fa macha allah mu gën a rafet at mi ñu ngi téye kóllëre gi bàyyiwuñ ko bugguñu tamit bu sooxe te yàlla bàyyi rek a tax waaye bu ne doomu aadama buy xool ak moromam ni ko ñoom man wan leen loo xam ne bañ bàyyee yàgg na waaye bàyyi lañ bëgg bàyyi lañuy xeentu moo tax tàyyiwuñ benn jamono taayiwul benn yoon taayiwul ci tool yi taayiwul ci di jëflanteeg man di ma jàppale ci lépp lu ma nekk jazaahumullahu xayran jamiian wa xaqaqa allahu lahum alrajaa wal matalib wal maqasid wa baaraka lahum fi xarakatihim wa sakanatihim wa fi kulli ma razaqahum وأيدهم بنصره ببركة الشيخ رضي الله di jaale mbokk yu fa wàññeeku ñépp di jaale Serigne Daara Touré waajuram amoon naa yéene di am fekk ne doxoon naa ñëw foofu waaye tijrir riyaaxum bi maa laa tashtahiihi sudur léeg-léeg ngelaw dana dawee noo xam ne ñi ci gaal gi ci biir géej gi duñ ko buggee noonu ñu ñaan yàlla waajur bi yàlla ko yàlla xeral jàmm yal yàlla leeral kanamam yal na yàlla barkeel gannaawam yal ko yàlla wane lekk sëriñam fu mu leen féete woon yàlla leen féete te yàlla nañ ko yéex a fekkaat noonu lay jaalee mbokk yëfa wàññeeku yëpp yal na yàlla kawee seen aljana yàlla bu leen yàlla topp daal ña fa des yàlla yàlla guddal seen fan ci dëgëral leen maa ngi gërëm taalibe ci benn nekk Dakar ci turu maam as cubb bu ma ko tuddee tudd naa leen ñoom ñëpp balaa gàmmu gee jot ci fan yu néew yónnee nañ ma xaalis bu bëri pour jàppale moom ci gàmm maa ngi gërëm nga xam ne ñu ngi ci tool bi guddeeg bëccëg di bay ci tàngaay wi di sonn ci lu ma yëg ak ci lu ma yëg maa ngi gërëm Moussa Thioub moom it ni ko doon defee at mu jot sikne minki daayira bi mi ngi def li ko war tamit ci daayira bi waaye bërki dee bu oona ma moom it yónnee ma xaalis bu bëri pour ma déglu ko ci gàmmu ne googu dama koy gërëm mag ña nekk ci dëkk ba nga xam ne bu leen neexoon li dara du ci am mais nangu guñ nangu ndax ku leen gis yéen xam ne ñàkku leen kilifa ya fa tabarakallah macha allah jikko yu kawe jàng alquran jàngale alquran nangoo liggéey moo xam ci Jurbel la moo xam ci Kaolack la moo xam ci Dakar la moo xam bi ci réew alhamdulilah rabbil alamina gisuma ci yii xew ci jamono ñi koy ŋàññi ñi ma ciy tudd koo xam ne foofu la nekk yàlla ko yàlla yokk waaye loolu bu amee dañ koy gërëmee seen bàyyi ak seen yaay yi ba pare ñaanal leen yàlla mu dëgër leen may leen wér guddal seen fan leen te yàlla fay leen ndax dañoo nekk ci jamono ju naqadi te ku amul ay waajur yu la tàggat teg la ci yoon rek jamono mën na laa këf ndax yi fi nekk di këfee dafa bëri lool maa ngi gërëm daayira Sébikotane Cheikh Omar Faye jiite leen ñëw nañ fi suba délégation bu mag indi teraanga ju bëri ak xaalis bu bëri dollu ci ñu leen di ñaanal yàlla ñoom it yàlla dëgëral leen fay leen te barkeel leen daan nañ ñëw fi ay ñaar ñetti nit waaye ren bi ñu ñëwee macha allah fees nañ fañ toogoon loolu nag góor góor lu la ak liggéey bu muy liggéeyal baax damay wax ne muqaddam yëpp buñ defoon comme moom sëriñ bi du meer ba toog ci jumaa ji di wax ak ñoom ndax moom de muqaddam la mu ngi yare nekk foofu te jàng na waaye doo ko dégg mu oote benn maqaam te léeg-léeg bu ma jotanteeg moom téléphone mu naan ma maa nga rachatoo di jaay masque maa nga Thiès di jaay masque maa nga Dakar di jaay masque lu tax xam na ne ndigal lim am pour yare du ne loolu ci la war a fàggoo addinaam xam ne am na njaboot am na jege ñaale te war na muy déplacé jamono ji yoonu nakade, bi may jaar waktu waxtu may dugg si bu xutaan dama koy oo mais ci palaasam laa koy fekk mu toog di muqaddam yëpp buñ defoon ni moom kenn du ŋaañ ñi yenn doxal nangu naa liggéey te jàng na te mi ngi jàngale yàlla yàlla fay ko yàlla dëgëral ko yàlla sàmm ko yàlla barkeel ko yokk mbooloo mi te defal leen tawfiq maa ngi gërëm Cheikh Silla moom it ñëw na depuis trois jours indi xaalis bu bëri pour dimbale ñu ko ci gàmm bi moom it at mu jot fii lay gàmmoo mbokku taalibe yi muy ànd te ni mu ko defee ren noonu la koy defee am mu jot ñu ngi koy sant moom it di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu dëgëral ko yokk ko jox ko ay mbébétam ak ay bëgg-bëggam ak ay càpputéefam di gërëm waa Sàmm Waalo Baba Jaw Oumy Diaw teew na comme ni mu daan teewe moom it indi xaalis bu bëri comme ni mu ko daan indee lépp rek pour ñu teral gan yonent bi sallallahu alayhi wa xale la waaye mi ngi góorgóorlu ci jàng mi ngi góorgóorlu ci liggéey te ñaar yooyu rek ñoom ñoo fa nekk ngeen xajal Cheikh Fall mu ñëw ngeen toog ko toog toog dem ci Amar Fall moom mi nga xam ne moom it ku mën a sonn la ci sama liggéey yi nga xam ne mi ngi am ci tooli Taïba Niassène yi ci kër ayet suñ koo soxla soxla oto mënul ne jox nañu ko defal ñu ci gasoil te duñu ci laaj dara su fekkee oto yi nekk ci voyage utal ñu oto jox ñu ko ne borom oto bi nekkal ci seen service ba keroog ñuy pare ngi ñaan yàlla mu yokk ko ñu ngi ñaan yàlla mu barkeel ko ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko ñu ngi ñaan yàlla mu gis mbooleem liggéeyam te fay ko ba mu gërëm maa ngi gërëm sama xarit maître Djibi Diallo Bisbi bi kok, na ko waaye bisbi it miin na bés bii nii moom waxtu wu nekk day dajale ba bëri rek mu indi wala mu yoni démb ba léegi ni ngi fekk ñun indi fi teraanga ju mag xaalis bu bëri pour dimbalee ñu ko ci gan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avocat la yal na yàlla barkeel liggéey barkeel yëngatoom barkeel dalam am na doom tuddee bu Cheikh Ibrahim yal na tur kuy borom yal na jàng yal na am xam-xam yal nañ ko dégg moom ak magam jaay rasulilah sallallahu alayhi wa sallam danaa gërëm Maodo Malick Sow sama njaatige ci France nga xam ne bi ma fa demee di opéré sama oom lépp moo ko togg som ci lool te xam naa ci moom mbaax teraanga jiitu loolu xam naa ci moom baax ak teraanga ba tey jii nii nii nii ñu toog di wax loxoom dañu ci man ñu ko yónnee saa yu nekk à distance waaye buñ teewee tamit mi koy joxe te loolu tey jii nii moo ci mujj yal yàlla fay ko yàlla barkeel ko barkeelal ko njabootam barkeel bu ay yëngatu ak ay dalam di jaay seen i jur ngi sant di gërëm wi ñi nga bu gàmmu jotee ñu jógee ci barab yu fasantikoo fi ci Medina ci Kaolack ak ba Dakar dugg ci waay bi ku nekk xam na ne jigéen ñi dañuy bëgg teint teint seen teint dañ koy bëgg a muy nice ah pour bégal seen borom kër yi ak ñi amagul tamit pour euh, xëcc gaañ yi pour ñu mën a ñëw te ku nekk xam na ne tàngaay bi ci dafay teint koy déranger waaye ñoom yoonu sallallahu wa sallam jaral na leen loolu jaral na leen ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yal na yàlla barkeel leen fay leen seen coono ak seen ñàkk seen jëm seen barke ndax ni ngeen di sonnee nii ñun luñ leen jox mënta fay loolu noonu ñaan rek mooy liñ leen mën a defal ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla am na ñu bari ñu fi yónnee ay teraan ñii nag ñii xaalis ñii meew ñii ndox ñii ceeb ñii jën ñii ganaar ñoom ñëpp yàlla leen yàlla fay luñ mën ren yàlla ñu mën lu ko ëpp leen yàlla dolli ci magasinam yi bañ gërëm bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa tamit damay gërëm di sant bi ñaanal xale yu góor yi nga xam ne ñu ngi muy mbay baay Nurdin bi fi nekk am na Nurdin bu fi nekkoon nekkoon na Aziz Abdul Razak Abdourazak Abdul Razak Gana Issa Isa Usman Baye Thiam ñoom ñëpp ñi ngi fii di ma sonnal guddi ak bëccëg di liggéey di sàkku am ngir maa de bàyyi ndax man sama sagari jëm bii aw ma aw ma solo bu jaar loolu noonu waaye ñoom li leen jëlee seen réew ñi ñëw fii mooy sàkku ngir maa de Cheikh kon ñi ngi len ñi ngi di ñaanal yàlla yal leen yàlla jox ngërmaane Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu yal na leen yàlla barkeel am na ci ñu bëgg a dellu ren yalla na yàlla yóbbu leen ci jàmm yàlla defal leen barke ba lépp lu sonn gis fi des ñoom it li ñuy fàggu yal na leen ko yàlla defal yalla yooyu yàlla yàlla koy falal ko mbiram te yàlla ànd ak ndëmbal ak ndëmbal yàlla loolu ñaan la ci guddi gi waaye buñ ci jógee incha allah liñ yaakaar ne mën nañ ko ci tamit daañ ko ci jéem ndax maître Diallo ngi nii ci wàllu yoon lay liggéey te li ko gën a neex mooy ma am soxla boo xam ne ci man la jógee wala ku bokk ci man dana ko itteewu kon maître dégg nga li xew ñu ngi sàkku sa ndimbal damay gërëm Baba Thioub Baba Touré man toujours Baba Thioub rek laa koy waaw man man waa Cubeen boo leen gisee cubb laa leen njëkk a wax après bu ma fàttali ko Serigne Daara Guèye moom daf may xoolaat bu mën a ko cubb mu fixé ma ba mën a ko Guèye mu door a nam waaye euh, bu nekk mi ngi indi teraanga fii nii ci kër gàmmu gi bi jotee daf na lépp lu yàqu ci kër gi ci làmp ak lu ci aju nañ ko ko bindal muy dëkk noonu la ko defee mu ngi ñaan yàlla nim leeralee kër gi yàlla ko yàlla leeralee mbiram yàlla yëkkati ko yàlla dimbale ko yàlla méngoo ko yàlla barkeel loolu la ñuy ñaanal ñëpp képp ku fi teew góor jigéen mag ak ndaw jugee ci daayira yi tudd wala nga ñëw ngir gàmmu si ñaan gi ñu koy yaatal ba ñëpp yàlla nañ ci xaj bi jaay rasulullah sallallahu alayhi na ñu ñuy xaar ci biir bu ku ñëw guddal waaye dañuy sàkku ñëpp toog dañuy sàkku ñëpp déglu ndax bàyyi dafa ñaan ne عليه الصلاة والسلام taqbal amdaahi wa taqbal man yahki yàlla ya nga nangu di di koy woy tamit di ko jàng yàlla ya nga leen nangu wax feneen uhibbu fatan yasdu bil amdaahi laa fidaa li may sallallahu di wax waxtu leer danañ jox micro bi suñu doom suñu jarbaat di doom suñu mag di Seyda Rabia bin Cheikh Ibrahim waaye di doom tamit ci di Cheikh Ibrahim bu ñëpp ràññee ci xidmaal di Seydi Cheikh Alhaji Bichri ci Mauritanie danañ ko jox mu doyal xol yi ci tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ paree ñu ñaan waajur bu nit ñi yàlla ko